Media TV, Media TV. Media TV, Media TV. donc bonjour Nous ngi nuyu ñëpp ku santam. tey ñu ngi dajewaat fii ci locaux bu Africanité Family en compagnie ak euh, notre frère Badou président de l'association SASB, yi nga xam ils sont reconnus pour action yi ñuy pour l'amélioration de la condition des vies des enfants en particulier donc ñu ngi intervenir ci domaine mais nous gën a focaliser aussi dimbale xale yi muy taalibe yi muy xale yi néew doole muy élèves yi nga xam ne aussi seen loxo jotul seen ginnaaw kon tey dañ fi daje dajeeg seen euh, naataangoo yoo xam ne aussi si loolu lañ nekk dans le social muy l'association africanité famille bi nga xam ne tey moom moo def collecte yii ngeen di gis euh, bëgg ko remettre symboliquement à l'association SASBI pour ensemble ñoom ñu jàppale les enfants ensemble ñu contribuer ci amélioration wu nekkinu xale yi donc tey looloo ñu fi dajale je pense que les les images sont fortes euh, ku gis lii rek jarul discours bu bëri donc li may def mooy jox kàddu gi suñu camarade le président Badou pour mu wax ñu ses impressions ensuite ñu jox kàddu le président de l'association Africanité Family monsieur Shingo monsieur Badou vous avez la parole. salaamaaleykum tout d'abord maa ngi leen ziar bu baax di di seen en fait euh, di rafetlu bu baax initiative bi nga xamante ni tey moom moo ñu boole fii di am contentement aussi et un grand merci donc SAS association la boo xam ne association sénégalaise la de solidarité bu yëngu tous de loo xamante ni tout ce qui est social la jëm ci xale yi jëm ci ndaw ñi euh, envers Kër Massar tout le tout le département bi nga xamante ni ñun ñoo nekk fii nii donc pare nañ pour dox ci li nga xamante ni moom mooy social. donc ñu lancé benn collect boo xamante ni dañ ci waroon jëm mu nekk distribuer ay dons au niveau des talibés que ça soit des pulls verts et autres par rapport ak euh, seddaay bi ñu nekk vu le climat donc ñu contacter si ñi nga xam ni ñooy waa africanité ñu def ci seen participation génnee lii yëpp ñoo teg ko ni à notre faveur ñoom aussi ñu dugal ci seen loxo pour ñu ànd dimbali ndaw ñi fi nekk yaakaar naa ni c'est quelque chose boo xam ni c'est à di leen si jaajëfal di ci am contentement bu baax. di leen wax merci au nom de la jeunesse massaroise au nom des talibés yi nga xamante ni tey ñoom ñoo waral lii nii pour ñu def démarche boobu noonu di leen présenter aussi à ma côté maa ngi am jaari moom aussi ñoo bokk liggéey bi nekk ci biir association bi xam naa dama koy bàyyi mu sànni ci quelques mots avant ñu jàll ci monsieur Shingo allez merci beaucoup. bon asalaamaaleykum tout le maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam comme que ko kii rek euh, association ñun ay jeune lañ dañoo regrouper juste pour une bonne cause jappalé xalé jappalé talibé parce que période bi ak sedd beeg yooyu noonu euh, ñun ñoo ngi dans de très bonnes conditions machallah allah ñoo ngi sant yàlla kon rafet na nga jappalé say morom jappalé nga xamante ne ñoo ñoo ngi dans le besoin donc euh, dans ce contexte ñoo ngi dajaloo ay ndimbal ak lépp lu mu mënta doon pour jappalé suñu morom yeeg taalibe ak ñom seen ak ñiko soxla loolu kese la moom merci beaucoup. waaw salaamaaleykum euh, képp ku ñuy seetaan donc ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ginnaaw bu ñu sante d'abord yàlla jul séerante bi quoi gërëm suñu waajur yi donc man la Chingo si président association Africanité Family bi représenté ONG Africa Camina depuis Espagne dont je suis le directeur exécutif ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest donc affaire bi ngeen gis nii c'est une façon de montrer euh, à nos politiques que dans la vie il faut s'unir c'est des jeunes du sud nous sommes des jeunes du nord donc tay ñu gis ni Kër Massar département Kër Massar wërngal këpp ñu dañu war def lu baax ñu lëkkaloo ak ñoom rek fekk si leen si li nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon def muy jàppale xale yi ñun aussi ñu waroon def daa retour mais on a jugé nécessaire ni comme mbir mi daa war a yaatu rek nañ leen jox loxo ànd ak ñoom ci seen euh, don vestimentaire yi ñu war a def pour les talibé mu nekk initiative bu rafet initiative bu baax donc mu nekk li nga xamante ne ñun ñëpp ku ci nekk ci askan bi bi nga amee li la yàlla dégg nga war ko mën a répété ndax xëy na man am naa si benn néeg bu may fanaan mais am naa taalibe yoo xamante ne peut-être ci ay cours la ñuy fanaan wala mais bu dee si néeg la ñuy fanaan gën nañoo am ay yére yu bees yi ñu sol waaw ñu ne woon nag euh, nañ fexe rek def benn acte parce que tey nit mën nga am comme suba mën nga mën nga mën nga mën nga ñàkk mën nga ñàkk comme suba mën nga am loolu moo waral nag ñu def li du dañ ko mën dañ ko am wala dañ ko yor non non non non dañoo jéem rek subhanahu wa taala muy yàlla mu jàppale mu jàppale ñu ba activité bii nii action bi ni mën a nekk ñuy kontaan trop nag ci le l' association SAS bi parce que dañ ay nit yi modeste lañ ay jeunes yi engagé lañ te ñun aussi noonu lañ mel moo tax ñu sawar trop pour lëkkaloo ak ñoom def activité bi ñëw aussi pas jàppale leen sax mais ànd ci ak ñoom prochainement aussi ñun bés bu ñu naree def suñu daara tour aussi on va les appeler et dinañ ñëw ànd ak ñun léegi nag ci seen journée bi ñu naree def ni ñun aussi du ñu am ci lii dinañ wàcc sur le terrain ak ñoom def euh, le tour des daara def contact direct avec les talibés ci loolu aussi ñu remercier suñu autorités locaux yëpp malgré que euh, yëg nañ ko mais ñu xam ne rek nous les jeunes nous sommes unis notamment ñi ngi remercier le préfet di remercier le conseil départemental di remercier aussi nos élus locaux notamment les maires parce que les li ñuy def aussi dañ koy def pour les populations comme nous avons ñoo ko waroon def te ñu ngi jëm ñun aussi duñ leen qui dañ leen di jàppale ni ñu ko mënee ak ni ñu ko yàlla dénkee donc je remercie remercier ci africanité bi xam nga di remercier aussi tous les membres de l'association euh, Saspi, donc di remercier tous les Massarois je wax aussi que cette activité cette action se répète dans tous les coins et recoins de nos chères communes Je remercie le peuple espagnol bi nga xamante ne seetaan ñu benn yoon notamment euh, ONG bi fa nekk mooy Africa Camina dirigé par monsieur Moustapha Cissé depuis Burgos donc di jaajëfal ñëpp

Unity TV Unity TV